Serigne Youssou Diop di responsable moral daara Hizbut Tarqiyyah ngeen toll ci wàccaayu ziar bu mag ngeen war amal ci kanamu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir fan ngeen toll ci wàccaay wi. waaw ñoo ngi toll ci teewlu ak ñaan suñu borom mi nga xam ne lu àgg moo ko àggale lu mat moo ko matal mu àggale ko àggale suñu yéene ci jàkkaarloog sëriñ bi ndax li ñu bëgg ak li ñu lépp mu ngi ci mu jàkkaarloog nun euh, ci bëtam yu tedd yi ñaanal ñu lii rek mooy suñu yitte. diggante bi nag loo fi dégg wàccaay wi ak jaral rek la maanaam xool yooyu mu ñu xool ak nangul gi mu ñuy nangal nangul moom lañ amul lu njëkk lu nu am rek ak lu nu mën dinañ ko ci def. <laughs> waaw disposition yi moom bàyyiwul dara xam nga organisation boo xasee wax rek il faut nga bàyyi xel lépp sécurité day taxaw na le euh, ak lépp loo xamante ne mooy tax. aménagement yi nga fexe ba mu matale pour nit ñi ñëw nga jox leen seen àq ndax jamono tàngoor bi nit ñi bu ñëwee war nañ war na am confort ci accueil bi ak tamit ñu bàyyi xel li lislaam santaane ci góor ñi ñu ber xale yi ñu gën leen yërëm boo leen bàyyee ci biir mag ñi dina des nga beral leen foo xam ne di nga mën a faggu ay ñoo xam ne dañ leen di wattu ak leen taxaw li ci des gan ñi itam ñu bàyyi leen xel njabootu sëriñ bi it ñu xam ne mbir boo ko amee ñaan gu nangu ba njabootu sëñ Tuubaa gi bu sa mbir taxawee ñoom ñëpp ñu jóg loolu du ngóora du du du lu nit di damoo waaye da danga ci war a sant ni nga ci sant jëf la war a doon moo tax ñun ñu ne waa Hizbut Tarqiyyah faw ñu yaatal bokki sëriñ bi dëgg la Hizbut Tarqiyyah mooy ziyaare waaye sëriñ bi suñu buggoon waaye Hizbut Tarqiyyah ñëpp ñëw dugg ñëpp kenn ku ne foo foo jekk toog gan dina ñëw bëgg a toog ci wetu sëriñ bi du ko mën loolu moo tax ñu organiser ko noo xamante ne bàyyi nañ xel loolu donc accès VIP am na donc mooy njabootu sëriñ bi ñoo xamante ne buñ ñëwee. am na commité comité d'accueil bu leen di waajal ci bunt bi jàkkaarloo jumaa ji mooy bunt bi jëm ci palais Djily bi euh, parce que site boobu foofu la ñuy defee ziar bi mais waa Hizbut Tarqiyyah mbooloo mi jigéen ñi ñu ngi duggee ci bunt bi jàkkaarloo kër sëñ Mbacké Madina euh, bu dee mbooloo mi tamit ñu góor ñi ñu ngi duggee ci bunt bu mag bi nga xam ne buñ jaaree foofu am na yoon wuñ leen créel boo xam ne ci la ñuy ñëw ba agsi te du gàllankoor dara loolu lépp jubluñ ci dara lu dul par loolu la ñuy bañ rek lépp mu tege ci yoon waa ñëw it am na loo xamante ne soo ko joxee importance ba dina la tardeel ci li nga xam ne bëggoo ko la ci tardeel ndax lii li xam nga loo gis dafa am temps fort temps fort mooy jàkkaarloog sëriñ bi su fekkente ne da nga ne damay def convoi dama bëgg mu yëngu dama bëgg mu aalu ni ñi génn loolu nga jox ko importance boo xam ne dina la jëlal temps ba nga tardé booy ñëw loolu kon dafa mel ni tisbaar day doon deadline boo xam ne soo ci tardé day metti te it sëriñ bi euh, wekk sëriñ bi ak fonk ko ak wormaal ko mooy priorité mooy sunu li nga xam ne moom la ñu gën a jox importance moo tax dañ naan convoi bi dinañ ci lem lu bari jël nañ ci ay xalaat nag def nañ ko ba nga xam ne ay camion masalan su ndox oto yu ndaw day fil bi day gudd te am na circulation naturelle boo am ci dëkk bi boo xam ne doo ñëw ne man xewle naa rek damay déranger lépp li nga xam ne moo doon dox donc am na nuñ ko def Euh, liggéey nañu ak euh, le commandement territorial euh, ci njiital sous préfet suñu gars yi def nañu réunion ñoom sëñ Amadou Sid Samb ak moom ba nga xam ne lépp teg nañ ko ci yoon li gendarmerie war a def li police war a def ni ñu war a ànd ñoom ba duñ déranger dara loolu def nañ ko mais daal joxuñu priorité convoi bi ñu ngi jox priorité ñëw ndax ginnaaw xam ne ziar dafa am ziar yoo xam ne ay ay ay matériel la ay camion yu bari ay ziar yoo xamante ne diggante camion mat yi jur géeg ak bagage yi day demee noo xam ne lijjanti ko rek day jël temps waa bokk ak ziar boo xam ne da ne sëriñ bi dafa am farata ñu war a wàññi ay koppar jox ko xeeb ko euh, laxasaayuwaat dem rootiwaat ñëwaat lii rek la. waaw départ bi bu dee départ bi ci daara ja 9h la ñu bëgg a diggante huit heures ba neuf mise en place bi lépp dina tege ci yoon ba au plus tard neuf heures ñu départ dix fi waaye nag nañ jàpp rek sept xam nga lu tax parce que la ñu daloon stade. stade bi ñu wootee bisub Sëñ Tuubaa dañ ne quinze heures la ñuy démarrer activités yi. 7 heures stade bi fees na. kon Sëñ Tuubaa xam xajul ci dara. kon nañu teel a ñëw. waaj teel ak si parce que dafa am ziar bi dafa am ñaari xaaj. xaaju dundal dundal gi moom ay waxtaan la sunu conférence yu mag yu yoon wi ñëpp invité nañ leen. bàyyi ñu ñoom sëñ Bouchra Samb ñoom sëñ Gana Misré ñoom sëñ bare nañ de waaw sëñ Fallou Gala si la Fallou Gala si dama koy yaba yëpp ndax day sama mbokkum daara ba nga xam ne moom laay mujjee tudd waaye kenn desul ñoom ñëpp sëñ Ahmadou Touré dañuy ñëw di animé ak kuréelu xasi yi di jàng loolu am na programme boo xam ne mooy dox waaye midi diggante midi ba midi demi fu mu jotee rek incha allah ñoo ngi séntu ku baax liggéey bi day tàmbali. waaw ziar bi ni nga ko waxee euh, day événement bu mag. te événement bu mag moom ku fa wax ku ne euh, dina nécessité dispositif bu exceptionnel pour mën a couvrir événement bi ci kaw loolu direction générale bu Hizbut Tarqiyyah euh, jël matuwaay yëpp teg ko suñuy loxo ngir ñu mën a couvrir événement bi fexe ba fooy mën a nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñu mën ko suivre bu baax ci nu mucc ayib daal euh, ci kaw loolu hmm, teg nañ fi dispositif boo xam ne régie boo xam ne euh, haute definition la tamit matériel bi nga xam ne mooy ànd ak moom lépp moo xam ay caméra wala ay écran pour ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak euh, faisceau yi nga xam ne mooy def transmission yi ak internet bi nga xam ne moom mooy moom mooy mooy jàllale signal bi yëpp ñu ñu teg ko li nga xam ne tamit moo jëm ci wàllu euh, transmission signal ba léegi suñu mbokk yi nga xam ne ñëpp ay télévision lañ wala ay site internet nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ndax événement moo am nu mu demee rek boo xam ne ñëpp mënuñoo xajandoo fii moo tax waaye ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp di saa su ne ñooy seq liggéey bi euh, fexe nañ ba am signal boo xam ne euh, lien boo xam ne dañ koy partagé foo ay mën a nekk rek moo xam muy site internet wala télévision da nga koy mën a di nga mën a jël signal mën ko mën ko saa yu la soobee kon loolu mooy matuwaay yi nga xam ne teg nañ ko fii ngir mën a mën a couvrir événement bi waaw plateau yi tamit ni nga ko waxee événement bi moo ñu toll kon doo bàyyi ba ñu ne tey la ziar bi di nga tàmm doo tàmbali liggéey bi kon la veille di nga tàmbali dalal gan ñi wax ak nit ñi euh, xamal leen li nga xam ne mooy fa la waajtaayu toll ak disposition yi nga xam ne yëpp jël nañ ko kon loolu du ci mën a ñàkk. kon loolu fi mu toll nii boo xoolee dugg na sax ci phase euh, test yi nga xam ne ci lañ toolu ndax suñu borom def na ñu ngi à presque quatre vingt ba quatre vingt cinq pour cent ci installation daanaka jekk nañ euh, ñu ngi ci phase test yi plateau yi ñuy def nii yëpp daanaka. test yi la dugg euh, nga xam ne yaa ngi jub jëm ci phase opérationnelle kon daal euh, mën nañu sant yàlla bu baax a baax xam ne installation yi daanaka jàppandi na euh, suñu borom defal nañu sottal bu baax a baax.